bismillaahi fiinin ak daala yàllaaw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 Bassirou jàkkaarloog jumaa ji lépp la ngeen itteewoo si wàllub kaam yi xasaa yi ak mbooleem it jumtukaay yi ngir seen diine yemb na fii bismillahi fii niin ak daala yàllaaw wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ilaa yawmi ddiin wa baadu faalamu ayyuha al ixwatu lmuminuun أن موقف الإسلام من المرأة موقف موقف تكريم واعتبار وتقدير وموقف إنقاذ مما وجدها عليه من الإهانة والاحتقار والاستغلال فأعطاها حقها في الحياة كاملا وبين أنها مساوية للرجل في أصل الخلق وفي سبب الإيجاد وفي المصير قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقد بين الإسلام كذلك أن كل من الرجل والمرأة لباس للآخر سترا وحماية وزينة hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna wa ja'ala al-'alaaqata baynahumaa 'alaaqata ta'aawunin wa takaamul ma'a baqaa'i kullin fii daa'irati ikhtisaasihi taba'iyyan fa huwa qawwaamun 'alayhaa bil-infaaqi wa lawaazimihi wa hiya sakanun lahu bi-ri'aayatihi wa mutatallabaatihaa wa 'alaa haadha al-fahmi an-nayr kaana xiyaaru haadihi al-umma 'abra at-taariikh alladii sajjala fii diiwaani al-majdi wal-khuluud asmaan li nisaain azimatin athaaruhunna baaqiya yastafidu minha al ajyaalu mutaaxiba fa rahimahunna allahu taala wa radiahunna jamia ñu ngi sant borom bu tedd bi subhanahu wa taala di julli ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi maa ngi fàttali sama bopp di leen fàttali ne lislaam mooy diine yàlla di nga xam ne ñëpp la yemale kenn ku dem jox la àq ndax yàlla ko wàcce ngir mu gindi nit ñi kon mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp la yemal moo tax ci lislaam am taxawaay bu ràññiku moom ci jigéen ginnaaw bu mu ko fekkee ci feneen mooy taxawaayu teral ko taxawaayu bàyyi ko xel taxawaayu dox ko lim doon mooy jaamu yàlla la ni yeneen mbindeef yépp nekk jaamu yàlla ñu bind ko ngir am muhimma ci kaw suuf ni mu bindee moromam di ko lislaam kon teral ko waaye xettali ko ci fam ko fekkoon ñu di ko doyadal di ko xeet ak di ko jariñoo mu jox ko xaqam ci war a dund ak lim yàlla lépp lu mat sëkk leeral ñépp ne leen nit du wuute ci ki ni kii góor la wala jigéen ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu bàyyi ko kenn nit la la yàlla bind muy aadama ci moom la soqee soxnaam xawwa ñoom ñaar ñoom ñi ñëpp aadama moomu suuf la bàyyi koo kon ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu jógee ñoo bokk lu tax ñu andi mooy bëgg ñu jaamu yàlla ñun ñëpp yàlla dañoo andi kenn ku ne am lu ñu digal boo ca nekkee doon ku jàpp boo ci nekkul jagoo waaye ñoo bokk fu ñu wala lëgee fu ñu wut ñoo ko bokk ku baax tënku ci lu baax wala lëgee sa kër mooy aljanna yàlla yàlla yóbbu ku doon ab safaan bu la yàlla yaramul feneen fa nga jëm yàlla joxe musal su borom nee na yéen nit ñi yàlla maa leen bind góor ak jigéen def leen ngeen nekk ay giir ay waaso ngir bëgg ngeen xamante waaye na ngeen xam ne ki gën a baax ci yéen mooy ci ëpp taqwa kon góor ak jigéen dugg moo xam góor gi moo xam jigéen la borom bi subhanahu wa taala waxit ne képp ku def lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga te fekk nga gëm yàlla boo lëgee da nga tàbbi àjjana kon nit ñi bokk fi ñu mujj boo lëgee mbokk yi lu ne kii góor la ba tax mu am cër boo xam ne jigéen mënu koo bëllëgee lislaam it moo ñu leeral ne góor ak jigéen kenn ku ne sa morom dalaa ko suñ borom misaale ko ay yére li ay yére di jariñ nit loolu la góor di jariñ jigéen jigéen di ko jariñ góor yére day sutural nit yére day aar nit aw tàggooru set ku naaj waaye yére day taaral nit góor ku ne ak taar la war doon ci jigéen waaye jigéen ji nit yooyu ñett yooyu la war doon ci góor suturaal ak aar ko ak taar ko mun na libaasun lakum wa antum libaasun lahun kon amu ci ñoom koo xam ne mën ngaa dem te te yóbbaale woo sa morom am na foo xam ne bu fa nekkul rek man ci pour góor gu soxla na jigéen jigéen bi du soxla na góor loolu it bokk na ci ñor bàyyi xel waaye jote gi dox diggante góor a jigéen rek suñu borom daf ko joteeg jàppalante joteeg kenn na ci ñoom motul moroom moom moo koy mottali moom dong su bëggee beru du sot waaye nag kenn ku ne am na foo jagoo yàlla dénk la bu liggéey foo xam ne yow la fay déglu góor la yàlla daf muy kilifa ci kër moo war a dundal moo war a sàmm moo war a aar moo yilif loolu borom bee ko bindee nu tax mu jox ko loolu jigéen mooy daluwaay bu nit jàqee bu nit sonnee bu kër jaaxlee bu ndikkee ci kër jigéen lañ fa rafet mu taxawu defal kenn ku nekk am na waar wala sant yoo xam ne kenn ci sa morom mënu caa sa morom kenn ci yéen ñaar mënu caa wut saa boo wàccee waaw it mu soxe saa bu jigéen bay génn eh, doon doon boroom këram àdduna du jàpp waaye saa yu borom këram bëggee ne ci kër ba ne génn nu mu wuti daf dara kër du jàpp ndax ku ci nekk daa am taxawaay bu yàlla dal ci sa loos bëgg nga di ko taxawee ngir dund gi mën a jàpp loolu it bàyyi ko xel taxawaay bu am solo boobu nag ci taarixul islam mag ñu baax bu bari xamoon nañ loolu ci ay góor ak jigéen daan ko dund kenn ku nekk fañ la fay la nga féete fa ba tax yàlla desal sa tur ci kaw suuf say njariñ di fi des nit ñi di ko jariñoo bari fi lislaam tey am na ay nit ci ay góor ak jigéen ñoo xam ne taarix bi ñu fàtte mukk ndax taxawaay ñu taxawoon ci la leen yàlla santoon ñu matal ko rafetal ko loola des fi jeexee di fi jóge des fi ñu ci jariñu bu àddina loolu it lu ma tax ay xel la xam ne kon àddina ku fi bu jàggee ne fan yi fi nekk bu jeexee jeex na dañ la fi indi ngir bëgg nga nekkin fi nekkin woo xam boo fi jógee bàyyi fi jeexit yoo xam ne njariñ rek lay topp waaye nag dafay desit nit ñi di ko jariñoo nit ñu bari jaar na ci bokk na ci ñooñu nag soxna su tedd si ñu doon fàttaliku dem muy soxna jaaratullahi di soxna Mariama Buso radiyallahu anha ci ay jikkoom ci aw tax doxalinam doon ko ragaloon yàlla waaye ku doon topp ndigal kon loolu it mbokk yi fàttaliku ko ci anam yi ñu koy defee bind la bu ci nit ñi war a jàng lu bari lu tax ba mu fi jógee bi yàgg lool waaye at mu jot mu mel ne ki démb la woon dund gu barkeel la ak dund su barkeelee dafa am yonent ab boo xam ne suñu borom nee na man yàlla su ma gërëmee dinaa barkeel ku ma gërëm barkeelal la sama barkeel nag moom mu yem kon dund gu barkeel mooy bind bi jiitu ci ñu war a jàng ci dugub soxna soosu ba mu fi nekkee ba jógee fi yi wa des fi ñu di ko topp njariñ yu bari di ci juddoo lislaam bi ci ndam ay yiw ak i xéwal yu bari mbooloo mu dul jeex bi ci jariñ te lépp tuyaaba yi doon di ko fekk fa mu tëdd radiyallahu anha loolu kon ñu war cee jàng ne ku ne ci noonu war naa yittewoo ak dundam barkeel góorgóorlu la nag góorgóorlu gi tax dundum li barkeel mooy tënku yàlla dañu fee indi ngir ñu moytu tere yi ak def liggéey képp ku ci tënku ak di rawante ci lu baax fexe ba bu la kenn man ci lu baax soxna soosu li ko nit ñi xamante daal lépp mooy mësta nangu ku ko man ci lu baax lu baax lu ñuy rawante kenn ci te borom bi ko wax saa yoo koy la maa fa def mu rabbi ko kon fas yéenee bu la kenn man ci lu baax mooy tax sa dund barkeel ndax mooy tax nga am ngërëmu yàlla te boo amee ngërëmu yàlla sa dund barkeel sa dund barkeelee nga ne fi ak nga jóge fi ñoo yem saw yiw dootu dëkk ba la ak boo duggee aljanna yi bokk ci ñi gën a kawe wàccuwaay loolu mbokk yi mooy li war a jàng ci nit ñi kon mbokk yi dañuy jëf adduna ji adduna wax ak noppi ku fi bëgg a doon dara da ngay fas yéene jëf waaye di naw ak di bàkkoo lu baax ak ñu baax ñu am taxut ci yow itam lu baax mboolem ñu baax ñi liñ ci doon liggéey rek seen bopp lañ doon liggéey lu njëriñ li fi mën a dégg ci ñoom lañ doon boole kon toog di seetaan li muy jur mooy boo liggéey nga doon doon yaa fas ci ginnaaw buñ la jàllee doo jàll mbokk yi ñu ko góor a fexe bay jàll te loolu bunt bu yàlla ubbi la yàlla mbaaxam du ko ubbi di ko dojal ubbi na buntu mbaax fu bëgg a gën mën ngaa jël waaye nu tënkul ci yam digal yàlla yi nga bàyyi baax lu ne fi xel bu ci gan man incha allahu bokk ci ña ñu baax ñi ndamoo bokk ci ñu baax ñi ndamoo loolu mooy war a doon yitte yitte ju kawee la si seen mag bi indi fexe ba nit ñi seen yitte waaye nga mel ni ñu bari ci nit ñi seen yitte weesu wut ñu dund ci àdduna loolu nag mu solo mbokk yi ku dund lekk naan waaye dañoo bëgg a gën defar adduna bàyyi fi jeexit yoo xam ne bu ëllëgee adduna ci jariñu ñëpp di ci jariñu yàlla ko yàlla booy defar bismillahi fii nii yàlla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 Bassirou jàkkaarloog jumaa ji lépp la ngeen itteewoo si wàllub kaam yi ak mbooleem it jumtukaay yi ngir seen diine yemb na fii bismillaahi fii niin ak daala yàlla